mu ne diggante moog sëriñ Abdou nee na amatul lu mu ciy wax nee na àdduna sépp xam nañ ko nee na bis bii li ëpp ci ñëw fii ñoo jokkoo ak moom téléphone fekk sax moom nekku Touba faaw mu ñëw ndax bis bii mu ne ñun ñi ñëw fii ñun kenn ku ci ne yaa woote téléphone wax ko ne ko bisub sëñ Abdou bi mi ngi ñëw te dañoo bëgg dem. ndax ñëpp a xam sa diggante ak moom. te li nu boole. te nee na li leen boole. diggante bu mu boole rek. diggante bu mu boole. mën nañ ca am yaakaar te la gën. nee na loola mën nañ ca am yaakaar te am nañ ko ci. ndax yàlla kese la ndax nee na lépp yàlla kese la ak sëriñ bi. daray intérêt rek la tayu. nee na daray intérêt lay tayu. lu dul yàlla ak sëriñ bi kese. lu dul yàlla ak sëriñ bi. mu ne ak soxnaam see toog. di rakkam. di soxna ndikkee. ci seen jëf yu rafet. daray kumpa du sama diggante. nee na daray kumpa du am diggante moom sëñ Abdou nee na du am benn bis boo xam ne ñoom ñaar ñii duñ déggante ay yoon yoon nee na lu nekk sëñ dan mi moom sëñ dana ko xam nee na lu nekk sëñ Abdou sëñ dan mii dana ko xam ci mbiri àdduna ak mbir yëpp rek amul yemukaay mu ne Baye Cheikh baayam la wëlëreem la daf ko daan wax ne ko mu ne sëñ Ousmane mii toog seere la ci dafa daan ko fii dan nga fi am ñaari cër muy cërub sëñ Tuubaa bi ak cërub borom daaru bi ndax tudde gi ñu ko tuddee sëñ Mahamadan muy doomi borom daaru daa ko waxit ne ko Tuubaa moom yaanu fa nekkal nee na loola nag mooy diggante gu sëñ Abdou mu ne te sëñ Abdou mii lu nit di wut ci nit ku baax mu ne yàlla rek ko tax di wax mu ne boo seetee jikko jooje da nga gis sëñ Abdou tegul boppam fenn nee na ku ko topp ci loolu day ëpp yàlla defit yàlla defit xalbul salim bi nga xam mu ne xol bu rafet bi nga xam ne mooy li am solo ëllëg mooy li am solo ëllëg yàlla defal ko rakkam yi mu bokkal Baye Cheikh rakkam yi mu bokkal Baye Cheikh mu ne lii mu wax moom sëñ Mahmoud ñii mën nañ ko ci seere nee na wóor na leen ne mu ne fi mu wax rek la ab dune mu ne lim yéene rakkam yi toog nee na yéene ko sax boppam nee na sëñ dañ ne nattaliwul loolu mu ndax tey boo ñëwee Daaru Musti dem kër Baye Cheikh tey ñëpp nga fay fek ñëpp nga fay fekk lu ko def jikkoom ji yaatu akuk yaatalam akuk rafetalam nee na lim gën a jàpp moom moom jàpp na ne amul noonu nee na kum gis rek li ne ci moom la lay jox la lay jox mu ne ñun ñii ko miin dañ ne dañ koy faral di wax ne ko sëñ Abdou kum xam ci sa jataay boo ko nuyoo sax da nga ca xam ne sëñ bi jàppal na la ngir sëñ ne da nga ca xam yëg-yëg boo xam ne sëñ bi jàpp na ndax sëñ dara sama sëfoor bii may dawalal ba ci sëfooram bii koy dawalal li muy doon doon nga ne wax na ko ngir diggante moom moom nee na moom la ñu am mbir yëpp it ci sëñ bi lañ koy delloo teraanga dayo mu waaye nag li teraanga ji baax baax baax liñ fi dund ci guddi ak liñ ci yaakaar ak taa bi jën xam ne jéego yu ñuy andi ak yu ñuy delloo lu kawe suñ jot danañ ko ci am nee na loolu la gën a bégee ndax barab bii day barab boo xam ne diggante ñaar ñii nu tudd muy maam Thierno ak Serigne Touba dafa jéggi dayoo nee na moom leeral na ci lu bari ci àdduna bi lu ko sëñ bi la daan wax ci lu bari ci seen diggante ak Serigne Touba mu ne baat bi ma tudd ne. fu mu mës a nekk fu mu mës a nekk sëñ Tuubaa ko fa bàyyi mu ne benn firnde la ciy joxe tëje ko waxtaan wi mu ne saa bu ko sëñ mësaa wooru dem ga day yéex ndax la koy def barab bu ne ci néeg bi mu ne dana xool lam fa teg ngir bu wujjee sëriñ bi bu ko nee bul delluwaat bu soxlaa dara ndaw mën koo jëli fii la ne ko sëñ Tuubaa jëf Mbàkke ginnaaw buñ bokkee nag liñ bokk mu ne kon Thierno Birahim mu ne Baye Cheikh sa waajur moo ko nettali ne ko ànd nag sëñ mu dawa balla ñëw ci sëñ Abdou Lahad mu nett leen lii muy wax ne leen Thierno ak sëriñ bi bañ njëkkee gisee sëñ Tuubaa da koo xamal ne ko su fekkoon ne yaa demoon ma des ginnaaw di la taxawul ni nga ma taxawule njaboot gii man du ma ko mën a noonu waaye li ma la ciy faye nag waaye li ma la ciy fayee nag liggéey baa ngi nii teg naa ko sa loxo ku am na la gërëm ku ñàkk na la xarab kon barab bi ku yaakaar sëñ Touba ak foo ko mën a yaakaare am na loo fi nekkal loo war a jël si loolu lay jël si moom nee na te rafet na njortu ne danañ ko yóbbaale ah kay Mbàkke danañ ko yóbbaale mu ne sëñ Abdou yow yaag say rak mi ngi leen di ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér gi yaram ak yéeney bàyyi seex yëpp yëpp ngeen àggale ko te it te barab bii ngeen nekk sigi ngeen fi di leen sigal seen waajur mës a bëgg dara mës a yëngu ci lenn lu liggéeyal borom daaru te yàlla nag jëf ju rafet du ko sànk mukk ba lim doon jëf ci borom daaru lépp yéen ñii la ko yàllay faye faw rek faw jëm kaw rek jëm kaw rek dolli rek dolli rek jëm kaw dara du yàqu dara du yàqu jërë ngeen jëf ah mu ne sëñ ab nee na lii sëñ dan doon wax ne ko Baye Cheikh ne ko yaa nekkal Touba keroog ba Baye Cheikh nelawe ñu ne ci quatre heures et demi ñu daje kër sëñ Bas dañ fay daje pour waxtaane nan la ñu war a yëgalee kilifa ne leen bàyyi seex jóge na fi bañ toogee kër sëñ Bas di waaja woo sëñ Dan ngir mu waxaleen ko kilifa yi Touba ci la ko rajo yi wax ñu nga jërëtul wax kenn jërëjëf jërëjëf nag jërëjëf alla waaw